wala waxtaanuñ ci ak yow wala xamuloo fan la la jëmee di nga ne ki la ko teg yaa yow lu tax nga teg ma li c'est ce qui s'est passé ñun boolewuñ ci concertation yi laaj ñu suñu xalaat dañu ko imposer. waaw mais terewul après gis nañu une rencontre entre ki nga xam ne mooy le ministre des transports Mansour fay ak li nga xam ne mooy le cadre unitaire des transporteurs routiers très bien donc foofu laay foofu également mhm. mu dellu ginnaaw. ci yenn mesures yi bokk na ci surcharge bi. Mhm. à 70 centimètres de hauteur boo xam ne may leen ko entre autres mesures yoo xam ne delluwaat na ci ginnaaw loolu doyu leen. non mais ka ñan la ñan la Mansour Faye recevoir ñan la woo loolu tamit da jar nañu wax parce que tamit la communication pour la communication la communication doit avoir un contenu ak tamit ñu xam ñan ñoo jël la responsabilité dem na il parle au nom des transporteurs. loolu aussi dafa war a dafa war a leer xam nga tey boo jëlee 90 pour cent des des transporteurs des responsables recevoiru leen waxoo ñoom dafa mel ne danga nga am ñeen ñoo waxal c'est ce qui s'est passé ñun bëgguñu dem grève tey bëgguñu dem grève ëllëg li ñu bëgg mooy liggéey si jàmm ànd ak état parce que tamit ñun ay sénégalais lañ te ki fi ñi fi nekk euh, citoyens sénégalais ñu leen fi teg donc ñooy suñu kilifa teg nañ ñeen place ba. mais ñun tamit na ñoom ah, en contrepartie ñun nañu teg suñu place. raison principale bi tax ngeen di dem lan la. les 23 mesures yi xam ne. d' accord leen ci benn. différent fekkee fi ñu ko doon waxtaanee. non ñan fekkee wuñu parce que Gora Khouma mi ngi fa woon Alassane Ndoye je pense que mi ngi fa woon mais Gora Khouma moom ñëw na suñu Alassane Ndoye peut-être. waaw du ma affirmer. Ah, ah, Gora Khouma ñëw na suñu plateau toog ne mi ngi woon ci rencontre boobu. très bien loolu moo tax émission bi lundi ñëwul. mardi finalement la mujj ñëw beneen bi. Mhm. que na ci point yi. Mm-hmm. am na ci yenn yoo xamante ne nag bu sañoon ñu joyanti ko uh-huh. bokk na ci lu jëm ci wàllu visite technique bi je pense xadi mm-hmm. uh, ak ak li xam ne mooy mooy pesage su fekkee ne jumuma portu bagage yi mm-hmm. mais waxul ne d'accord ñu ci te aujourd'hui bokk na ci ñi dem grève ban la ñu ciy gëm alors ba tey jii ba tey jii may waxee yow euh, les vingt deux ou vingt trois points parce que vingt deux yi lañ jëlee mais vingt troisième bi sax dañ ko dañ ko dañ ko ci biir te mooy wax ne ces mesures doivent être concertées avec les ci 23e point bi loolu lañ ci wax te point boobu dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko suuloon suli lañ ko nag góor xuma fekkee na ba ñu lire texte yi mais ñoom ñëpp kenn amul amul woon voix au chapitre kenn discuté wul dañ ko liir seen kanam micro bi s'il vous plaît dañ ko liir seen kanam mm-hmm. bi ñu ko liiree tëj waxtaan wax loolu du concertation Fadou Abdou concertation mooy ah ñu ne lii lañ xalaat yéen lu seen xalaat ñu ne ah bii baax na bii baax parce que ñun tamit suñu Sénégal suñu Sénégal la transport suñu transport la ku ñu koy ku ñuy jàppale pour ñu defar ko dañuy ànd ak yow waaye nag lii dañ koy imposer boo jàppee un ba vingt deux un ba vingt deux mhm. limitation des des des véhicules âgés de dix ans tey bu ñu ko doon def li ma wax léegi quatre-vingt-quinze pour cent des véhicules léegi dañuy tëb dañuy tëb tey donc mesure yi lan lan lañ ko jël ak fan lañ ko appliqué xanaa appliqué ko Sénégal loolu mooy suñu problème ñun te demande mooy une renégociation de ces mesures là. Mhm. c'est ce qu'on demande du leneen. alors beneen beneen boo xam ne jël nañu ko comme décision muy yéen aftu xëy rek ne da ngeen di yokk carburant bi parce que tout simplement da ngeen di yokk pluto transport bi parce que tout simplement carburant bi yokk na yéen également bu ñuy wax concertation. noonu ngeen koy defee da ngeen di toog ba mu neex leen ngeen lëlu génne seen communiqué tas ko ci askan wi un dimanche pour que le lundi képp koo xam ne yaa ngi jógee sa dëkk nga teg ci ñaar fukk wala fukki dërëm yéen a yem en quelque sorte. non peut-être que loolu ngeen gis mais sur sur la forme mais dans le fond ñun depuis des années depuis des années ñi ngi wax ci affaire tarification. depuis des années ñi ngi wax ci ci ci rehausser wala réorganiser la tarification man sama yore di ko exploité te mënu ma ci am dara finalement ci client bi lay répercuté parce que dinaa dem ba a yóbbu wala du ma ko yóbbu dans de bonnes conditions donc dañoo dem ba mënatuñ dem Fatou Abdou ci lañ génne communiqué bi carburant yokk huile yokk euh, euh, na yokk carburant yokk cent francs pièces détachées yokk carburant yokk cent francs moom mujjee yokku parce que a yokk ci client bi nekk fukki dërëm wala ñaar fukk loolu également maanaam dafa tolloowul sax nag dama ne est-ce que loolu également du indi problème moom laay wax ne intrant yi à commencer par les pièces détachées depuis 2020 du simple au double pneu yi du simple au double assurance ba ki démb assurance xam nga yëgu leen ko tamit assurance bi léegi c'est à 14 pour cent. Mhm. dama yokku na carburant bi ñëw yokku ci mais nag jar na nag léegi laaj nañ ñu rehausser un peu réorganiser xoolaa suñu suñu suñu suñu tarification. ci mhm. loolu lañ nekk de peut-être yéen a koy doog a yëg démb moo tax mu nekk surprise yéen mais yàgg nañ ko dox ci suuf. Mhm. ak alors dañuy delluwaat vers vers Moodu depuis cinq bi nga wax maa ngi koy maa ngi koy gis muy euh, muy ree euh, vous n'êtes pas d'accord ak euh, li mu wax. non mais c'est que il juste ñu woo leen du mais damay jël yéen ngi ci logique boobu. oui bien sûr point par point mu ngi wax ci liberté pour mesure mu ñu jël ci guddi damay xamal ji bi ne ko la liberté des uns s'arrête là où celle mm-hmm. des autres. beneen affaire bi ma waxal ko ne ko bu fekkoon ne système mu transport bi entre offre demande. Mhm. amoon na équilibre. boo mhm. mënee xëcc micro bi tuuti rek. amoon na équilibre. Eh, micro bi carrément. amoon na équilibre. Mhm. kon marché bi mooy équilibré boppam état du intervenir. mais le système defee défaillant. c'est pourquoi on voit la mais invisible del l'état pour réguler pour teg réguler ci demande bi réguler ci offre bi. xam nañ ne. la main invisible c'est-à-dire parce que état day dugal loxoom ci biir te du acteur principal bi c'est les privés qui opèrent du service public. Hmm. l'état ne kuy dugg ci transport da ngay am agrément. Hmm. kuy dugg ci marché da ngay agrément oto bi nii la war a mel dañ koy réceptionner. Hmm. nombre de places bii la war a am ça c'est une régulation de l'état une réglementation des fois il y a des pays où on déréglemente où on dérègle mais fii le système est défaillant le marché est défaillant moo bi. di ñëw di réguler par ces moyens c'est fondamental bi ci des mooy ñoom ñi ñëwoon ci conseil interministériel bi direction générale des transports terrestres ANASER on fait un constat sans complaisance du système kan moom mën a weddi ne oto yi nañ leen surchargé baaxul ñu may leen un mètre dix ñuy dem ba deux mètres déplacer centre de gravité bi manque de maîtrise chauffeur bu xëy ba ngoon di monter bagage di la pas su guddee mu tëggatu tali bi ça c'est un constat kan moo constaté wul ne oto yi dañu màgget quatre-vingt-dix mille véhicules ont plus de vingt cinq ans quarante cinq mille véhicules ont plus de cinq ci parc bi du transport public laa ko de màgget nañ kooku xam nga constaté ko boo demee centre de contrôle technique bu bees bi cinquante quatre pour cent à peu près des véhicules ñooy fréquenté centre li ci des yëpp ils passent entre les mailles du filet dañu daw ñii amuñ papier yu baax ñi ci des ñu ngi daw di dem ci région yi pour immatriculer seen oto pourquoi ne pas démocratiser la le contrôle technique pourquoi ne pas arrêter les surcharges limiter ko état bi bi mu waxtaanee kisèm e kii bi cadre unitaire bi limité na chargement yi cinquante centimètres pour les sept mille places et pour le reste soixante dix centimètres pour ne bu leen déborder ti parce que loolu ci code de la route la nekk bi ñu réceptionné homologué oto yi ba pare dafa am arrêté buy renvoyé ne bu fekkee ne oto yi ñu amoon amuloon soute à bagage porte bagage dañu am dañuy réglementé y un premier arrêté de 2005 l'arrêté a été corrigé la semaine passée et publié mhm. koo xam nga d'accord nañ ci d'accord nañ aussi que ñu déployer le centres de contrôle technique modernes dans les régions parce que jusqu'à présent soo demee ci région yi il font un contrôle manuel alors que contrôle technique contrôle ak ay machine la et contrôle visuel ñaar yooyu lay allié ñële visuel rek la ñuy def mhm. oto yu ci bari contrôle technique baaxul parce que tey phare bu éclairé ci kaw nit mun na ko xam tant que tegoo régloscope frénomètre su fekkee da ngay freiné oto bi jëng jëm nii wala coupelle bi toj na kooku frénomètre rek moom ko a xam donc il faut ñu équiper euh, région yi de centre de contrôle technique c'est maintenant ñu ne leen oto yi dañuy ñëw dakaar pour faire passer la visite technique c'est difficile mais soo xoolee presque quarante à cinquante pour cent des véhicules dans la semaine dañuy ñëw Dakar ou dans le mois. Mm-hmm. am na oto yoo xam jotu si wuñ Dakar boo dawalee cent kilomètres soo repee euh, moteur ba dee yooyu mën nañ ci waxtaan. Mm-hmm. ba xool nu ñu ciy jubóo que gouvernement bi gaaw déploie centre yi dans les régions. ça c'est fondamental bon la conduite de nuit li ñu constaté mooy accident yi gën a grave sont passés avec des véhicules transport public soo déggee moor yu bëri yëpp guddi la moo tax état bi ne ah nag il faut sauver la population l'état a le rôle de sécuriser sa population il a pris une mesure d'autorité ah, ah. Euh, yaa ngi yaa ngi lim par benn mais moom moom daanaka dafa dëxëñ yëpp et bu ñu leen comprendre bu ma juumul li leen li leen gën a metti mooy le fait qu'il n'y ait pas eu de concertation ak ñoom au préalable et que ba ñu ca yeggee également amuñu woon droit wax ndax ànd nañ ci ou pas wala wax ci point bu nekk comme comme ni ñu ko bëggee. non y a toujours eu de la concertation peut-être temps bi ñu jox leen parole ñëpp ñu exprimer wu moo jafe am na ñoo xam ne jëluñu seen convocation parce que temps bi ñu jël pour préparer conseil interministériel dafa gàtt mais mesures yi du guleet parce que daf nañ fi ay conseil yi yu bari. bëggoon nañ di même tëj gare routière yi à à partir d'une certaine heure. donc du mesure yoo xam ne nii euh, euh, du du du ñeene guléet état bi toujours concertation lay wax d'ailleurs ci code de la route bees bi def na fa benn conseil national de la sécurité routière conseil boobu moo war a suivre mesure yi. ñu ko évaluer s'il y des impairs ñu corriger ko parce que aussi quand vous prenez des décisions il y a évaluation. d'accord soo demee appliqué mu jafe. Mhm. mën ngeen toogaat xool ko redressé ko nga ñëw d'accord ci ñu continuer parce que l'objectif qui est visé ce n'est rien d'autre que réduire les accidents de circulation.